ñu bañ a fàtte li tax yàlla bindu sa màggaay xamoo ko te danaa leen wax lu lu doy waar yéen waa Sénégal yéen ñu koy seetaan ñi dee ndax am na ko dekkee bu mu wax ñu lu xew amul ñii dee ndax ñun xam nañ ci ban monde la ñu ne waaye yéen ñii toog ku xam nga ñaata at nga am waaye xamoo ñaata la yàlla bi président Macky di def tournée amul ñu faatu mm-hmm. ah? est-ce que buñ xamoon ne dañuy faatu danañ dem xamuñu ko ñooñuy fóonanteeg raayanteeg njaalukat yi góor ñuy juutalanteeg yépp xamuñu seen ëllëg sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun yàlla nee na fa ma leen di nappee duñ ko fa foogee danaa leen teg loo xam ne sukkuraat dañ xam ne metti na dafa am loo xam ne réew ñu waru ko nangu lépp lu màccul ci diine màccul ci lu nit war a def ñu woo kooko ne ko eh lii nga def bu mu amati su amatee lii la ciy fekk lii pour lan parce que xaalis lañ la jox xaalis mooy lan lan mooy xaalis lan mooy xaalis xaalis du dara nga nekk góor jigéen takk lom-lom léttu ñu jox la seen logo bi nga yore mu nekk ci mbubb wala ci leneen gis nga ma wax la lu gàtt diine ji jaral na ma kii kii laa amul benn nit ci àdduna bu ci dugal sa baaraam ci duma la dam përëj laa koy def kilifa boo mën a doon dimbale ma rek nga génn ànd ci góor jigéen ba ma yëg waaw mhm. ah, bu ñu bu ñu jàllee ci loolu nag oustaz ñu naan euh, oustaz Iran Ndao waxam dafa xaw a sec yi gis nañ la nga nga wax si loo xam ne euh, jigéen ñi moom la ñuy utiliser bu ñu amul jëkkër ñu naan euh, oustaz day jaar ci digg baal ma baal ma loolu amul solo mm. man damay jàngale mais <laughs> c'est des détails mm. man ay détails du ma ci ku ñëw fii si yi fii ñëw di ma jël mm. dama naan leen may ma ma waxtaan pour ñi lay seetaan mën a jël xam-xam mm-hmm. lii bu ngeen ko tegee ñu bëri jàngat ci mm-hmm. loolu rek ci solo bi mm-hmm. te wii yi ngeen bëgg fii la nekk man yeneen demal ci euh, irshad wala ibnu rushd ibnu rushd dafa am benn waay bu ñëw wax yeneen bi ne ko ma ibnu rushd ne ko man damay laal sama awra ndax bu ma ko laalee sama njàpp toj mu ne ko looy awra waa ji di dof dof lu mu ne ko xanaa amul lu am tur am na jëmm lan la mu doog làmb tubóoyam ne ko lii la mu ne ko soo ko laalee ci kaw tubóoy ji tojul njàpp waaye soo ko defee direct mook sa loxo toj na njàpp wax dafa leer dafa leer de tubaab tubaab day wax il faut appeler un chat un chat oh, oh, oh, xam nga lu yeneen ci wax waaw solo solo duma ustaas ñu ne ko loo dañ maa yebal ma jàngal leen ku ñuy jàngal sangu ah, <laughs> ci digg ba ñaan xattit xam nga xattit ci digg ba jaar voilà donc beneen tomb bi njaalo ci digg balaay jaar lu mu mën a doon nit laaj ma ko ci digg ba laa koy tagg su ko defee nag mu leer ci sa bopp <laughs> dem jëfee euh, ndax yóbbu na nit safara. soirée la. ah euh, mel ni spectacle yi xew léegi ci concert dajale mbooloo mi ngir fecc ak. léegi ma laaj la. Mhm. yow mi oustaz yow mi dajale mbooloo ku ne dagg bii jox la lekk nga lu xaraam ndax dañ ko dañoo dagg bii bi ci lu xaraam góor ak jigéen daje fa. te góor ak jigéen waruñ joxante loxo waruñu riisonte nga boole góor ak jigéen ñuy fecc buñ fa jógee am ñu feccalee leneen ànd ak seeni gel njaalo ci doogu ñi waxtu julli yi duñ ko julli mu ngi leen di fekk ci soirée bu dee ca làmb ji fa la leen di fekk su dee ca football ba fa la leen di fekk man diini laa fi toogal faale leen faale lu ngeen wax ci man du ko dégg daganul déedéet daje leen ni gis nga même diine ji ñu ne ñun ñu ne bu dee gàmmo da ngay organiser ñëpp rëbëjoo góor a jigéen daganul waaw ah, dañuy faral di gis ci tànt yi dama ne daganul jàppal ni nit ay def li mu bëgg def li ko neex mais deful li yàlla bëgg waaw lu tax yu sew yi ñun dañ koy sàggane waaye léegi ñu jël combat bi di ko yóbbu ci yeneen yoo xam ne dañ koy réel. dañ ko ragal parce que daa am intéret bu yóbbu da ngaa def boo ko xale yu jigéen dañ lay saaga duñ la woo conférence wala xale yu góor yi saaga la duñ la woo conférence wala gouvernement bi ignoré la yàlla rek a fi ne kenn néew balaa ñoo tëj waxtaan bi ci li xew fan yi ci ay néer bi nga koy dégg. ndax gis nañ fi gendarmerie <coughs> gis fi police gis fi force de l'ordre yi nga xamante ni ñoom lañ yaakaar ni ñoo war yor suñu kaaraange waaye dañuy gis ni léegi njiitum réew mi wala yenn ci kilifa homme politique yi dañuy faral di eh, jël ñoo xamante ni dañ leen di escorter ba léegi sax dañuy dal ci kaw askan bi oustaz te mu nekk actualité woo xam ne ñu bëri jaaxle lu ci sa jàngat. man de li ci sama xalaat balaa dara mooy mënoo nekk sa bopp ba pare ñëw toog di ñu commandé non temps bi laa koy wax quoi. dégg waaye bu fekkee ni li xew la li ñàkk gëm yàlla la ki li li ngay xëcc ku la ne ko jëriñoo njëriñ loo fekkee xale yi gunge woon mag ku leen waxoon ne foofu la ñuy faatu ñoom ñi xëccoo deux mille vingt quatre defe na ak mair yi ku la wax ne boo yoree mair bi da ko jëriñu ku la wax ne doo fi dee ci diggante bi. mais xamoo ci dara kon yàlla nee na fa ahsinu fa inna laa yuhibbul muhsinina rafetal leen ndax damaa sopp koy rafetal nañ rafetal campagne yi bañ ciy dugal lu ci bokkul loolu rek la mën nga laaj nag lu lu lu sew loo xam ne célibataire yi ñoo ma yóbbante woon ci oustaz ndax célibataire yi nee nañ bu ñu jullee marié ñoo koy moom oustaz yi dem bay waxtaan ci loolu loolu est-ce que du wàññi un jaamu yàlla bi nag ci célibataire waaye ñi ko waxuñu benn dëgg ah. man amila saalihan nañ ma ko firi ah wa man asa faaliha yàlla ne lu waay def ci lu baax yaa ko moom bu dee lu bon it yaa ko moom ñu naan julli célibataire rek julli marié marié mooy lan soo amul loo takkee jabar bul takk bul lor doomi jàmb laa darara wala diraara julli yàllaa ko moom bokkul ci sëy tabaski yàllaa ko moom bokkul ci sëy aj màkka yàllaa ko moom bokkul ci sëy ku la ko wax waxul dëgg laa wax jullig marié amul jullig célibataire am amul jullig yàllaa am jullig yàlla ku la ko wax waxul dëgg julli leen ngeen bañ commencé songu diini ji yàgg na de ca tëjum jumaa ya ñu teg ci léegi góor jigéen yàlla ne xaaral ma ñëw dinaa leen indi loo xam ne moo gën a garaaw góor jigéen dama leen di rey ngeen di lab may rey ngeen di accidenté di dee ndax dootu leen tudd lii dafa am luy julli célibataire man sama julli defe nga ne aw jabar ñu koy jox ko waaye yow ban célibataire yow nooy def man am mi la saaliyan fani nafsi ak man kaana lilaay kaana laaw law yàlla ne aqimoo salaata julli leen daa tudd mari daa tudd noo mari aqimoo salaata julli leen ustaas yi génn bëgg xaw ma baase la baase du bës baase baase day daw biir kon du bës baase. la day daw seen biir yi waxu leen dëgg firi leen ak ximoo salaata. julli kon loolu binduñu ko fenn. li mu wax mooy ñu célibataire tudd kenn ak ximoo salaata. kon ñi ñuy gëmloo naan ñu ay. se marié ëpp yoo waaye dañuy fen nga naan malaan maa la wax loolu waxuñu dëgg nañ firi ak ximoo salaata ak man amila saalihan fa li nafsi ah julli fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun yàlla nee na ñiy sàgganee julli ñépp safara lañ jëm ah, lii alquran ko nga naan way di bëgg a baase bul boo lekk kon Iran waxu yàlla la waa ji dama ne sëriñ bi hmm. ku ma toogal ci àdduna nga weddi yàlla hmm. wax lu mu waxul hmm. weddi yonent bi weddi diine dama lay dóor maa la wax loolu te gis nga sama loxo bi bu ma la ciy dóor ngay faatu benn sikk nekku loxo bi bu ma lay dóor ngay faatu man du ma xale